بدأت بسم الله ذي والجلا أصلي على المحبوب ذي المجد والعلا ثناء جميل للنبي إمامنا وأن إمام الله ذو الفضل والعلا صلوا يا عباد الله عليه سلما huwa almustawa xayrul baraya mukammala mam limaamul maadiyu huwa faaqa rusulillahi fadlan wa bilula yonen sirajan anaara lil wujudi zawi dalal baylaay mooy xamarul hidaaya li naayati rabbana wa shamsu bi diini mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal na leen ci topp bi ngeen di topp lu Lou'Bess TV bisimila xibaaru appel bi si ñetti ponk rek lañ koy daal di amalindi ñii di waag mouvement Cambérène moo nu ñor ñoom nekk ñi ngi woye li nga xamante ni moom mooy set setal bi rek ñoom dem nañ ci nga xamante ni moom mooy fële ca grande mosquée bu Cambérène buñ fa jógee nag dinañ daal di def doxantu nemmeeku ak waa PAMECAS ñoom nag dem nañ ci kër xalifa bi nga Amadou Mahtar Lay ibnu Seydina Mandione ñoom na doon nañ amal li nga xamante ni moom mooy jumtukaay yu am solo yoo xamante ni dañ leen koy daal di bu ñu fa jógee tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy charretier yi ñoom nag def nañ seen cri de cœur ndaxte ñoom nag nee nañ gisaguñu li nga xamante ni moom mooy seen bopp ci bis bi ngeen taaxir lu tuuti rek ñu yaatal leen dal leen ak jàmm xibaaru appel bi dinañ ko daal di dooree ak waa mouvement Cambérène moo nu ñoom nag gannaaw bu nu jógee fi nga xamante ne moom mooy jàmm lay Seydina Issa Rouhoullahi ñëw nañ ci grande mosquée wu Seydina Issa Rouhoullahi daal di amal li nga xamante ni moom mooy euh, set setal ba ak waa urum bi kanu fa teewal di màgget cub ñu teewlu ko di taxaw fii ci urum bi si jàkku Seydina Issa Rouhoullahi alayhi salaatu wasalaam taxaw si taxawaay bi nga xam ne dañuy waajal wooteb Seydina Limaamu alayhi salaam 144 anniversaire de la fête de Seydina ndax ku xool lii sama ginnaaw xam ni la maam bàyyi laay waxoon rek fa lañ diine ja xale ya ak mag ñu mos ñu ndax boo xoolee sama ginnaaw ay xale rek ñoo fa nekk kon wax ji kon si nañ ci kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ni lépp rek boo gisee rek da nekk si wàccaay bi. lan la ñuy wàccaay ajiboo daxyalaahi yaa maxshara insi wal jinni inni rasuluna aleykum moo waral tey urum bi nga xamante ni mooy xolu Cambérène juma yonte yàlla isaa bi nekk fi ñu fas yéene préparé wooteet Seydina Limaamu alayhi salaam si nettoyé urum bi ruqayeex ruqaat yeex yëpp pour ganu yàlla yi bu ñëwee ñu mën a am fu mën a dal ci jàmm ak salaam kon moo waral sanu taxawaay fii ñuy responsable urum bi Sopé Mouhamadou Laye Seyni ànd ak daayira bi yëpp ci góor a jigéen mag ak ndaw xale yaa ngi nii nag nekk si liggéey bi pour wàccaayu oote Seydina Limaamu alayhi salaam kon ñu ngi oo ñëpp ci li nga xamante ni mooy dénkaane li ku fi ñëw nga sol col gu yiw ci góor ci jigéen ci mag ak ndaw ndax lii yàlla moo ko joxoon Seydina Limaamu ni ko dama la yónni si ni tax jinne bàyyi laay nag bi mu ñëwee ne nag jotal na matal na wax na nag lam ñuy wax kon nag ku fi ñëw ngalawaay ñun lay ñaan ci col gu yiw col gu yiw ndax ku xam kër Seydina Limaamu xam ne col gu yiw la leen xamee kon nag message baa ngi noonu di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jaajëfal lañ ko bu baax a baax kooku di màgget Thioub waaye comme niñ leen ko waxee woon ci xibaar yi rek ñii di nga xamante ni moom mooy waa PAMECAS nag daal di leen def uh, dox ak nemmeeku uh, xalifatul muslimin Seydina Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mañoon ñoom nag daal leen leen di indi li nga xamante moom mooy jumtukaay yu am solo lépp rek ngir waajal wooteb sangi bi alayhi salaatu wasalaam. xam nga famille ahlu bayliti rasul moom dafa nekk uh, famille boo xam ne dafa am solo ci Sénégal. ñu nit yàlla def ñu nekk une société benn coopérative nationale boo xam ne fépp foo xam ne ci territoire national bi wala ngay sénégalais dañu wa fa war a agir donc bu fekkee ne événement bu day nii dafa am ba pare nag di Dakar muy événement boo xam ne tey mën naa ne mooy événement bi gën a majeur dans la région de Dakar te ñun ñu am ay caisse yoo xam ne dafay opérer à Dakar moom la ñu wane léegi am aussi une forte communauté laayeen boo xam ne tey boo demee Wakaam nga dem Ngor nga dem Yoof nga dem Yëmbal nga dem Malika ah ba baa ngay génn tey la région de Dakar di dem ay côté donc fépp foo xam ne côtière lébu la rek ñun dañ fa am de fortes caisses coopératives yoo xam ne ñu ngi dox donc bis bu mel nii bu ñëwee ñu xam ne on a des membres am ay caisses yoo xam ne ci foofu la ñu jokk ñu nit duñu def lu dul ñëw jàpp ci bis bi mais du ñu yem rek ci niñ daan def nga xam ne dañuy ñëw indi ndox indi ay sijaada indi ay xéwal mais dañu commencé depuis trois ans di réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire ba nga xam ne aussi nekkinu pèlerin yi ci biir dëkk bi dinañ ko mën a yombal bi ci jiitu d'abord mooy nan la ñuy def bol ndox ndaxte ku nekk xam ne ne dëkk bi dafa am nu mu baaxoo noo xam ne fu nit mën a ne mën nga faa toog jaamu fa yàlla mais it dafay fekk ne aussi accès minimal yi nga xam ne war nga koo am mu fekk la fa moo tax ñuy indi ndox di indi ay basang yoo xam ne foo toll di ko mën a lal mais aussi ñu am ay services de proximité mooy fu nit mën a ti nekk tey ji boo fa toogee soxla sa xaalis mën nañ la ko jox su fekkee ne da bëgg a déposer xaalis nit mën na koo jël si pour éviter aussi yenn manquement yi nga xam ne dafay am ci nit ñi par rapport à leur économie ba nga xam ne ñi nga xam ne ñëpp dañu bokk ci communauté bi wala ñu jàpp ne événement bi opportunité économique la ñu fexe ba yombalal leen ay crédit yoo xam ne dinañ mën a jaay wala ñuy jënd am nañ expérience boo xam ne dañuy jéem a fexe ba waa dëkk bi nag yi ñuy rey ñu mën ko yaral seen bopp soble yi ñuy lekk jigéen ñi mën ko bayal seen bopp jaay leen muy pompiteer bi loolu mooy tax dëkk yi évétement yu mel nii bu ñëwatee au lieu mu leen di lor mais mu leen di defar mais bu fekkee ne ñoom nag yi dañuy dem jëlee ko Niger Mali Bénin jënd ko di ko rey pompiteer bi ñu dem jëlee ji ko Hollande di ko indi ceeb bi ñu jëlee ji ko Thaïlande dangay gis ne bis yi da leen di sonal moo tax ñun fi ñu jëm ak ñoom mooy nan la ñuy mën a def ba daayira yi organisation yi féminin yi ak femmes yi nga xam ne ñu ngi ciy nekk bis bu jotatee six mois avant ñu permettre leen ku mën a yar nag nga yar nag ku mën a yar xar nga yar xar ku mën a yar ginaar nga yar ginaar ba nga xam ne événement bi bu ñëwee lépp lu fi nit di aajoo doomu réew mi doomu dëkk bi ak lu laayeen ñoom ñoo koy produire di leen ko jaay ñu mën di ko jëfandikoo. ba tey rek kër xalif bi la ñuy daal ni ndax ki nga xamante ni moom mooy euh, président wu euh, conseil d' administration ab nag waxtaan ki nga xamante ni mooy sunu naataango di Chérif Fallaye moom nag mi ngi koy daal di wax li nga xamante ni moom mooy euh, politique de proximité bu ko defee rek ñu bàyyi ko kàddu gi mu yaatal ko. moo tax daa waxoon nañ ko sëriñ bi mais foog naa ren dinañ ci gën a waxtaan ak ñoom ndaxte li ñuy bëgg mooy six mois avant ñuy ñëw ci dëkk bi di def ay réunion ak jeunesse bi ak famille ak. organisation de développement communautaire yi ba nga xam ne dañuy organiser wu ba nga xam ne lépp loo xam ne bu nit ñëwatee ci dëkk bi daf koy aajowoo su ñëwee mu fekk ko fi te doomu dëkk bi ñoo koy jaay noonu lañuy def ba nga xam ne bis bi dootul métti ci waa Cambérène may day nekk bisu xéwal ndax foog naa sëñ bi amul luy lore lim fi teg lépp xéwal la donc amul lenn loo xam ne nit war na ko cee mën a def mu koy gaañ bis bu mel nii bu fexe ba àdduna bi yëpp mën a daje une semaine à Cambérène foog naa loolu c'est une opportunité économique boo xam ne waa Cambérène war nañ ko saisir ñun tamit ñu jàppale leen ci mais nañ ci xalaat loolu la ñuy bëgg ñu bëggoon nag ay organisme de développement communautaire comme ay médias yi ngeen yor ñu gën ci liggéeyandoo ba nga xam ne dëkk bi dinañ ci yeewu nit ñi dinañ ci yeewu xam ne opportunité économique xam ne journée yu mel nii semaine yu mel nii dafay baax dëkk bi di gën a xam ñaata lañ nag la ñuy rey ñaata petit ruminant xar la ñuy rey ñaata la ñuy dépenser ci pomme de terre lan la ñuy dépenser ci soble yëre yi nit ñi di xotti di ko sol fan lañ koy jëlee ba mu nekk une opportunité économique pour waa dëkk bi. cant ngërëm ñeel na ko bu baax a baax kooku di Chérif Fall waaye comme niñ leen ko waxee rek ñetteelu ponk bi dina nekk ak ñi nga xamante ni moom mooy doxuk nemmeeku waa équipe Lou'Bess TV daal di def ñi nga xamante ni ni ñoom ñooy dawalkatu charrette ñoom nekk ñi ngi def li nga xamante ni moom mooy ñaxtu bu mag a mag ndax nee nañ gisaguñu seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy bis bi. non xam nga la moo tax ndax da gis daaw danoo am tuurukaay yu neex mais nii nii pour nga jël garawaay pour tubaga sax. problème na nii da ngay xalaat yow foog nga koy tuur da ngay dem ay dëkku jàmbur ba bu booy dañuy dem ba Malibu ñu ngi nii ñu ne ñuy jàpp seen fas kon bu dee maire yi moom moonu moo taxaw ni lu carrément dañuy utal ay palaat yoo xamante ni ay palaat yoo xamante ni xam nga pour dañ koy tax si kii ñun waroon dum utal foo xamante ni xam nga waroon fa mën a tuur garawaay waaw foo xamante ni waroon fa mën a tuur garawaay ko quoi ndax palaat yi ten taw lan nu koy jaayee dix mille nu koy jaayee te palaat yi dañ koy jënd mënuñoo am fun fun fun fun tekki sanu fas mënuñu utal foo xamante ni xam nga mënuñu utal foo xamante ni dañ fay tuur garawaay si appel bi ni moo gën booy booy buñ buñ buñ buñ jugee xam nga ah di jël ay garawaay xam nga di ko tuur si mbedd meeg yooyu noonu te loolu du yoon quoi barki Seyna Mouhamed. mairie Cambérène bu dee mën nga ko jàppale si loolu comme que yow yaanu wax carrément ay plaque dañ ko war a ut yaanu wax carrément ñuy kuus fas fas yaay nii ñuy kuus nii waaw foo xamante ni. ñun appel bi dinañ ci gis sanu bopp liggéey teral sanu yaay ak sanu waajur ndax appel bi ñun lu am rek sanu gani ñoo tax quoi waaw. cant ak ngërëm ñeel na ko bu baax a baax kooku du Lamine et son équipe waaye tamit mbokk yi xarit yi li lañ leen indiloon seen journal de l'appel cant ak ngërëm ñeel na leen bu baaxa baax waaye fàttewul ñi nga xamante moom mooy équipe technique bi ba suba incha allah.